mbokk yi dal leen ak jàmm ñiy dund ak tawat ji nga xam ne moo di insuffisance rénale nekk ñu ci jàmm waral ñu yuuxu ba seen baat mën a yem ngir ñu wàllu leen yéenekaay bi di Walf Quotidien del siwaat si doxam ñaxtu bi nga xam ne amal nañ ko ci week-end bi association bi nga xam ne moo ëmb ñuy dund ak jàngoro ji nga xam ne moo di insuffisance rénale ak dialyse ji nga xam ne moom la ñuy def teew a dakk ak jafe-jafe yi nga xam ne moom la làmbool lépp mu xëy ko becc ci xëtum ñeenteelu bi le journal ki nga xam ne moo di professeur El Hadji Amadou Diallo moom mi nga xam ne moo jiite bi la association moom mu ngi naan fii si réewum Sénégal boo xayma lu toll si benn million doomi aadama ñooy dund ak jawat ji nga xam ne moo di insuffisance rénale waaye lu toll si ñaar fukki junni képp ñoo xam ne tawat ji laal na leen si biir ñaar fukki junni yooyu nguurug Sénégal ñim say taxawu weesuwul junni ak ñeenti téeméer mu tas leen si hôpital yi clinique yi nga xam ne ñoo nekk si biir réew mi ñenn ñi si public bi ñenn ñi si privé bi mu ngi naan ñaari fan yu nekk ñaari doomi aadama dinañu faatu fii si réew Sénégal at mu jotit lu toll si ñeenti junni way tawat yu yees dinañ ko am fii si réewum Sénégal la leen gën a mitti nag moo di koppar yu bëri yi nga xamante ni bi moo ànd ak jalis bi nga xam ne moom la ñuy dëkkee def ñaari fan yu nekk lu toll si juróom benn fukki junni ak ci juróom la ñuy fay maanaam boo koy xayma loolu boo koy xayma weeru jot dina toll si juróom-ñetti téeméeri junni yoo xamante ni bi dina toftal maanaam ay millions la at mu jot muy jafe-jafe yoo xam ne ñu ngi koy dund nag te naan si wet ga ñaar fukki centre ak juróom kepp ñoo fi am te biir ñaar fukki centre ak juróom yooyu fukk ak ñett yu tane képp ñooy dox fii si réewum Sénégal te mu ngi naan centre privé yi nag moonte xaj nañ ci waaye foofu borom yi barke dëgg ñoo fay mën a fajoo yuux wallu goo xamante ni bii ñuy dund ak jàngoro ji nga xam ne moo di insuffisance rénale yuuxu nañ ko wàllu fii si réewum Sénégal jamono ji dara desewu leen lu bënn seen i bët di jooy mu ngi bënn ay bëtam di jooy moom Tamsir Thiam mi nga xamante ni bii moom la ñu sàccoon lu toll si ñett téeméeri million si bisu tëréem ginnaaw bi nga xamante ni bii ay samba booy song nañ ko foofe sa marché Ocass sa diwaanu Touba fukki fan ak ñeent si weeru octobre atum 2018 la woon waaye moom li waral nag naqaram dëgg jamono ji moo di ñi nga xamante ni bii ñoom lañu jàpp ne ñoo doon def mbir mi ñoom yoon daleen leen a teg loxo te moom yëgu si dara maanaam amal ab mandat dépôt si ñoom te ñoom yëguñu tinuñu kenn si ñoom sax mu ngi naan bàyyi nañ ko ginnaaw bi nga xamante ni bii ab sëriñam moo wax ñu bàyyi ko te ñi nga xam ne ñoom la ñu def mandat dépôt it mbirum vol lañ leen jàppee waaye du cambriolage ku bindoon itama ñu tëggale ñaari boor Bougazelli gaa ngay jëpp si yéenekaay yëpp ginnaaw bi nga xamante ni bii njuuyti na gendarme yi nga xam ne ñooy enquête si mbirum foobee yi nga xamante ni bii ñoo ko topp moom Seydina Fall Bougazelli buñ sukkandikoo si enquête yéenekaay mu ngi naan ñaareelu faux la amal moom mu jàpp ne dafa ñàkk wegal dëgg li nga xam ne moo di yoon fii ci réew mi di justice libération naan ay ñooñam ñu ngi koy layal dëgg nag naan moom mii jamono ji nga xamante ni bi moom lañ koy diglu ci section de recherche ñi nga xam ne ñoo di ay avocat am teewuñu mu jàpp ne aw lay la woo xamante ni bi tegul fenn ndaxte yéenekaay bi jox na kàddu yi ñi nga xam ne ñoom la wax ne ñoom ñooy ay avocat am di maître Assane Dioma Ndiaye ak ki nga xam ne moo di maître El Assane Dioma Ndiaye naan gendarme yi yëgaloon nañ ko ko libération naan ak lu si mën di am liggéey bi li si war dëgg nag parquet bi képp moo ko war a def le quotidien naan jamono ji kay Serigne Bassirou Gueye nemm nemmaaral gi mu nekke moo jaaxal ñu bëri te moom daanaka daawul doxalee nii waral mu fësal si xëtamu njëkk ne bas sans voix ay miiru njing sort du bois Sud Quotidien jox kàddu ki nga xam te ni bi moo jiite groupe parlementaire Benno Bokk Yaakaar Aymérou Gningue muy yéy di yàbbi si doxalinu réew mi rawatina mbirum Bougazelli mi nga xamante ni bii jàpp na ni métti na lool nga gis sa naataango député nekk si jaltu jaltu yu ni mel waaye mu ngi jàpp ne yoon dina def liggéeyam ni mu waree mu ngi yéy di yàbbi si ni nga xam noonu la réew mi doxe ak assemblée nationale rawatina groupe parlementaire bi nga xam ni moo di bi mu jiitee di Bokk Yaakaar njiital Benno Bokk Yaakaar président de la république Macky Sall ni ki démb ci forum bi nga xam ne moom la ñu amal fii ci réewum Sénégal jëm ci paix ak sécurité jàmm ak kaaraange ci réewu Afrique yi nekk loo xam te ne bi nag tax na mu yëkkati kàddu yi fulaam ak yu dëgg yoo xam ne jàpp na ne war na ko wax mbootaayu xeet yi nga xam ne moo di Nations Unies ci jamono ji nga xamante ni bi géey yaa ngi wër di takarnaase fii ci réewu Afrique yi rawatina réewu Mali ak Mauritanie njiital moritani moom si boppam Mohamed Ould Ghazouani moo fës si xët wu njëkku yéenukaayu aan bi di Le Soleil moom Ghazouani naan réewum Sénégal ak réewu Mauritanie dañoo war a am seen fulla ak fayda nag te jekk xam ne mbir yi ñu ngi suñu kanam mu ngi naan képp koo xamante ni bi nag danga naan réew Mauritanie dañuy def njaayam jàmm li ngay wax xamoo ci dara te lépp loo xamante ni bi ñoom war nañ ko def ngir jàmm sax ci réew Afrique yi dinañ ko def jeexal ak wàllum tàggat yaram ak Aliou Cissé mi nga xamante ni bi daanaka mu ngay waaj li nga xam ni moom lañuy ñuy wax relève équipe nationale maanaam ay ndaw yu sawar te mën football moom la tànn teg leen ci digg terrain bi ak li nga xam ne moo di attaque bi diggante Habib Diallo ak ki nga xam ne moo di Sidi Sarr ba ci Krépin Diatta moom Krépin Diatta stade yéen kaay jàpp ni mooy meneur bi nga xam ne moo ñu manqué woon dëgg ci dëgg terrain bi suñu làmb moom xëyee mbirum Lac de Guiers numéro moom mi ngi naan jekk na ngir jàmmaarloo ki nga xam ne moo di Gris Bordeaux ndaxte moom jàpp na ne mooy benn VIP bi nga xam te ni bi janoogut ak moom ci làmb ji mu jàpp ne combat jànq dëgg lay doon te moom mi jekk na ngir sëgg bëre digganteem ak Gris Bordeaux jërë ngeen jëf mbokk yi dig daje ba ëllëg incha allah